Rewmi 24 TV. dal leen ak jàmm mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo siyaar leen dimanche 25 juin 2023 fële ca cité kër góor gi gis nañu ne ñii di patriotes yi ak ñii di waa opposition bi waa yeewi askan wi génn nañu jubali foofu ngir euh, barricade ba nga xam ne def nañ ko fële ca buntu kër Ousmane Sonko boobu ak léegi mu daal di yàgg lool. Maymouna Boussa ak euh, kii di Déthié Fall euh, ñoom ñu bari daal di bokk ci coalition yeewi askan wi. ñi ngi noonu euh, di def euh, seenu ñaxtu ngir ñu mën a dindi barricade boobu waaye gis nañu li di takk der yi jamono yi daal daal dinañ leen di gaase mu doon lu doy waar loo xam ne bu ñu leen gaasee rek bu fekkee ne riposte am na bu ko defee sànnanti xeere tàmbali mu doon loo xam ne lu métti lay doon fitna ma ngay nelaw yàlla rëbb na ku koy yee fi ñuy wax ak yéen ni daal bu fekkee ne rek euh, événement bi Sénégalais yi ñu bari ñu ngi tal ñi di jaay ay xar kenn ku ne ak la ngay tal waaye tamit bu fekkee ne rek fitna daal dina yëngu fii ci tabaski bi dina doon lu doy waar loo xam ne ñii di jaaykatu xare ñeneen ak ñeneen mun nañu eh, perte seen i xare ñi di jaay marchandise mun nañ ko perte kon loolu dina doon loo xam ne lu difficile la ci réew mi ginnaaw ba nga xam ne Ousmane Sonko rek barricade nañ ko pendant lu toll ci ay euh, vingt et quelques jours mi ngi nii mënul génn mënul dem fenn daal tey nag gars yi ñu ne daal barricade bi dafay dañ tey ci dimanche bi wala ñoom duñu tabaski gis ngeen leen noonu lacrymogène yi commencé naa daw mu doon loo xam ne lu méttee mét mét la ci Sénégal fi ñuy wax ak yéen ni daal ndax Ousmane Sonko këram googu daal yàgg na fa loola mënul fexe ba génn mënul fexe ba dugg kenn mënul dugg kenn mënul génn loolu ñu nemeeku fi ñuy wax ak daal kon euh, garanaat yi moom ma ngay daw ñii di gendarme yi daal dinañu gaase ñi nga xam ne ñoom ñooy leader yeewi askan wi gis ngeen noonu Déthié kon daal daal dinay doy waar fi ñu wax ak yéen nii